bismillahi rahmaani rahim waaw ah, bokki taalibe yi abdul xudduus fii ci daarul mooti mooy waxtaan yéen ci teewaayu sëñ mouhamadul amin fay la waaw sëñ mouhamadul amin fay mi ci waxukaayam laay wax ak yéen leen leeral bu baax ne leen ko ngeen déggoon ñu wax naa Moustapha Bey la tuddute di wax ak yéen mel ne maay wax ak nu nekk rek mu defe ko defin woo xam ne daal moom am naa ci lu ma metti lool xam naa yàllaa ko niit rek waaye mhm. sant yàlla ndox yàlla lu niit rek mu feeñ waaye nañu wóor nii daal yéen ñuy dégg daal koo ci xam ne moo la gisoon duma la xam Moustapha Bey moom noonu la mel ci man bu ma ko gisee xaw ma ko woon mel na def na ko ay at i at mbaa boog diir bu yàgg yàgg waaye yàlla xam na ne ñu ngi ci door a xam dara yàlla mi ko niir rek la doolee sant bu baax mhm. te bëgg sëñ bi fi teew te yàgg jëf jëflanteeg moom bari sax ñu indi ci moom ngir sama jëm mu leeral leen bu baax ne leen moom de ndogal gu mettee métti goo xam ne rek gu yàlla dogal la waaye xam ko sax defuma ko waaw xam naa dox yu àdduna xam ne nu nekk nu nekk daañu ko wuti àll ci àdduna léegi rek de moom wax nañ ma ne suñu Moustapha May lañ ko tudde wax nañ ma itam doon muritu ca arafa ci kër suñu Moustapha May waaw yàlla xam ne nii rek la demee ñi nga xam daal moo leen gisoon lu xam mm-hmm. moom moo ko gisee ma ne kii xaw ma ko waaw waaye ñu ngi leen jégalu bu baax te am na yàlla fay leen te boole leen tawfiix ci baaxu sëriñ bi te ku ko dégg mu jot li ko mbokk taal bi ci des waaw kay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.